waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna waaye tamit maa ngi nuyu ñi ma bokk ak plateau bi. Mhm. di la nuyu grand. di nuyu sama soppe yëpp képp ku toog di seetaan di Diop rek maa ngi lay nuyu. waaye Sidi Dial bi xanaa feeling la. gis nga waaw di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna di nuy sama yaay di nuy sama papa bi ma jur di nuyu sama famille papa ak sama famille yaay mm. di nuyu aussi euh, waa kër gi ma dëkkal kër ajaratu Dieynaba Fall Iba Deko famille bi yëpp ak sama ménageur Deko Ndiaye xam naa six heures du matin la non na ak sama ménageur bi taxaw Baye Zal chéri Awa en maa ngi béggee ñëpp ak sama yaay mm-hmm. ah, dama damay damay dama lay bëgg a laaj euh, euh, toujours bu ma la gisee sama yaram dafay daw macha allah li ma lay bëgg laaj mooy lan ngay voilà quoi lan ngay yëg nii fii nga fii nga toll nii mm-hmm. lan lan ngay lan ngay yëg qu'est-ce que ça te fait waaw euh, doo ci yëg leneen lu dul contentement parce que comme li nga wax rek amaana sax gars yi fooge wuñ ko woon dëgg mais yàlla mooy jékki-jékki rek xool fu dara newut mu def fa dara ah, macha man nag li may wax rek laay wax sama gars yi ay at ci ginnaaw kenn xam moon bu yàlla yàlla du liggéey loo ko mu namu ta fay. déedéet su ma joxee baat bi rek daa bëggoon ma am lii. te maa ngi xaar lu dàq lii aussi. Mm. malgré neex na mais chaque jour comme géej gi ba ma ko paasee aadama ah ne paase naa ko. Mm. am na leneen lu nekk ci sama kanam ndax amaguma disque door damaguma Wembley damaguma Zénith damaguma Bercy. Mm-hmm. comme xale laa ah 94 nga ñëw suñu borom defal la lii. damay ñaan yàlla na yàlla xeeb doole te mu yeggale ma ni yoon. waaw waaw mais tey ñu ko doon laaj bu ñu mm. gis ne euh, tey da nga particularité bi nga xamante ne moom la la Sénégalais yi. Mm. Euh, gën a bëgg mooy Sidy déjà bu taxawee. ci kaw seen rek Sidy day jox seen mooy maanaam. mooy man daf may xalaatloo Carlou di par exemple. da ngay jël bu bu star bi teg fale. Ah. dëggal leen. fecc ah. fecc way carrément way ah, carrément ah. waaw ñoo xam ne ñoo xam ne ni nga mel barki dem dama doon wax ak baxaw maa ngi koy nuyu waa Dabrent mu wax ma wax ju am solo ndax man bu ma nit di wax damay xool li baax ma téeku mm-hmm. li ma intéressé wul ma tegee ko ne baxaw ne ma sa succès ci doomu aadama yi la nekk mm-hmm. yow mi siiw sa succès ngi ci doomu aadama yi parce que ñoom ñoo lay gis jooy daw photo ak ñoom bu ñu demee ba loolu yëpp ñu téye ko ci yow rek amatoo succès mhm. c'est vrai c'est nga mhm. moo tax nag ñooñu su ma leen fekkee sama soirée damay jéem a fexala tout ba ñu bég ndax boo ñëwee di dugg si soirée bi kees bi dara du fi nekk nga ñëw commencé way génn ñu ñëw sa kër kees bi fees dellu ñu indi la fa xaalis te tegoo ko fa mhm. jaam ñee ko fa def. ba pare eh, duggaat mais dafa doo ca. siidi mu waane. yow da ngay dugg rek way nga pare mu fees ñu dagg ticket xaay ba ñu jël ko jébbal la ko. Mm-hmm. te nga xam ne lii ba may dugg new fi woon. bokkut ak lañ lay may ci kaw seen bi. kon ñooñu li la war lenn rek la. Mm-hmm. fu ñu toll rek ñuy bëgg ndax doo jën ndox la. waaye doole woykat nit mais si Sidi man aussi. leer na ba noppi de. bu bu naa la laaj leen parce que dama gis ni que da nga euh, fidéliser tellement ce public. à chaque fois boo joué fenn dañuy ñëw. Euh, que ça soit muy boîte ou plage comme ni ñu ko gisee léegi ci image yi. Mm. Euh, est-ce que peut-être dafa am benn liggéey boo liggéey derrière wala sa staff liggéey ko ba a chaque fois mm. boo wootee dañuy ñëw lu mu sori sori wala lu mu xat-xat ñu ñëw kes ce qui fait ce public boobu di la affaire star ak ak fans mhm. man li may dund ak ñoom mooy mag ak raq mhm. sœur ak frère mhm. ndax bu dara du dara ñun ñooy toog di ataaya bu ma xamee ni Pape Cheikh mi daf may bëggee tey la anniversaire am dama koy bett dafa seen kër daa am ngénte damay jéem a fexe lu tuuba dem fa mhm. comprendre nga démb rek am na sama benn soppe boo xam ne da doon ngénte mhm. ndax ma ko fàtte wax xam naa ne a ko fàtte ma toog ñu ne ma ngénte li ma taal sama ànd ak gars dem fa te bu ma duggee maa ngi sant ni mu kontaane woon mhm. kooku foo wootee te mu ñëw ndax da ko bett noonu la rek waaw euh, ginnaaw moom tey euh, mën nañu wax euh, plage bi. Hmm. est-ce que yaa ngi xalaat euh, beneen defaat beneen événement boo xamante ne par exemple Dakar lañ Dakar lay nekk feneen ci Dakar. waaw ñu ngi waaj voile d'or. ci vacances waaw parce defoon nañ ko ñu ngi waaj aussi BCEAO. Mm-hmm. ñi ngi waaj tëjaat aussi mali bu ñu ngi koy waaj tëjaat ko ndax foofu sama koñ la mooy géejawaay. Mm-hmm. sa diggante géejawaay. loolu tey te boo ko doon nekk ban particularité. Mhm. lal lay def ci yow Guédiawaye. mais neex ndaxte nekk fenn Ndongo Lo dane bul te dëkk ba dem fa bu la dëkk ba bëggee demal waaw man waa Guédiawaye dañ maa bëgg. Mhm. nu ma mën a mel ñoom la keroog ba may dem concert bi sama mag yi dane bul bul dugg oto da ngay dox waa Guédiawaye ñoom ma jël si sama buntu kër ma ànd ak ñoom dox. ba ci concert malgré amoon naa difficulté pour yéeg ba mu jeexee tamit ni mbooloo mi toll dañ ma ne doo dugg oto da ngay doxaat ma àndaat ak ñoom malgré dina métti mais ñoom loolu lañ am ci yow ndax atu lëmb la ñu toll foo woote ñu ñëw dagg cinq mille mm-hmm. kon nag day yoon nga jëlaat cinq mille yëpp dajale ko jébalaat leen ko mm-hmm. di dox ak ñoom di ànd ak ñoom ñuy gis ni kii ah, parce que kenn rek bëggul ku ko yëg muy sàcc waaw kuy dund rek bëgg nga ku la dund rek bëgg nga ku la loolu laay tudd ak ñoom moo tax ñu ko. <laughs> Mbappé mii moom mooy Sénégal. mooy banlieue waaw te dañ maa bëgg ba ma xam ko. waaw dañ maa bëgg ba ma xam ko fu ma ma tijjee it foofu laay dem tëddi. foofu laa njëkk dawalee. Euh, moto. Mm. falaa dawalee vélo. falaa dem ba dawalee fa oto. macha allah kon lu ma am lépp banlieue la. macha allah ak Tivaouane aussi. Mm-hmm. maa ngi leen di bégg bu baax ndax falaa defee primaire. Mm. ñu bëgg ma trop surtout waa Kër Cheikh Awa Balla. mais kaay mais jaabiraa tamit yombul de. yombul yombul yombul la mën de. jaabiraa yombul ñu feccee ba tëb nii il ñu ko léegi balaa ñuy balaa ñuy tàggoo. mais dafa am histoire jaabiraa. waa jaabiraa nag sama benn doom la ju dëkk Pikine mhm. bëgg ma wax dëgg yàlla maa ngi bëggee waale tamit waa Pikine bu baax a baax a baax mhm, mhm. ñoom foofu lañ dëkk eh, benn bis la ñëw sama soirée rek may joué di woy ba ci yàgg ma gis ko muy fecc fecc bi rek ma jël turam. Ah, moom moo tudd Jaabira. moom moo tudd parce que Jaabira sant la. Ah. moom Mariama Jaabira la. Mariama Jaabira. Ah. waaw nga dëgg amoon naa waa classe bu sant Jaabira. <laughs> xam nga yéen mooy li ma waxoon rek yàlla mooy jël benn affaire rek te ci loxo. ndekete affaire yi fii la waroon mais bii bi bii nii ak sa un bi ban moo gën a bu gën a garaaw bi wala jaabi laaj bi. waaw un nag du ko xalab ndax moo ma jox meilleure révélation. un un bi tam garaawoon na de. ah ndax ah, eh <laughs> <laughs> loolu moom daaw mën naa ni ci li gën a tax ma jël meilleure révélation 2017. ci la bokk ren tamit bi ñëwaat ñoo ngi ñaanaat yàlla nañ ci suñu borom am lum ñu ci mayaat. leer na ba noppi leer na ba noppi. bi. yaa ngi bi yaa ngi jógee tournée di préparer nag euh, Espagne. waaw Espagne bi kañ la. waa xam naa suba la ñuy dem ndax. suba ngeen di dem waaw. concert bi samedi bii la. waaw très bien. incha allah ah fan la fan la ci Espagne. xamaguma dëkk bi nag ah. ah? Lérida Lérida Lérida saan Espagne yaa ngi dem fu neex ok. donc sax mais booy dem ci bitim réew tey si li Diop. Euh, nga gis li nga liggéey Sénégal macha allah yal yàlla daf caat. Hmm. nga dem sur le plan international. Euh, lan ngay lan la lay lan moo lan la lay yokk mooy lan nga ciy jàngat. Hmm. yow waaw waaw lu lu jàngat gu bari nga ci am ndax dangay gis nit ñi foofu tamit ni ñu la bëggee nga xam hmm. yow ndekete. yow sa musique yamul fii rek. Mhm. ndax nga génn feneen nit ñëw ne la sa son bi daf maa neex tegal la ko mhm. loolu rek sa fait plaisir. Mhm. wala nga génn beneen dëkk xam ni fii dëkkuma fi juddoowu ma fi. nga ñëw di woy saal bi fees dell loolu ça fait plaisir maa ngi ci gërëmaale tamit bu baax waa doom doomu jolof gépp ah, jaaf encore une fois happy birthday maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax maa ngi war a demaat mais nag tous les vendredis. maa ngi fii duplex. waaw ah, foofu laay chaque vendredi fa la ñuy daje ñun ñëpp. kaf mm-hmm. foore def jaabira xam nga chaque vendredi fa laa nekk mais vendredi bi nag damay sauté comme que damay voyagé. Ah. mais su ma ñibbisee à partir de 3. damay ñëw euh, chaque vendredi ma nekk foofu noonu ba vacances jeex incha allah. Ah, nit ñi aussi j'ai vu bëgg nañ sa live yi. Euh, album bi peut nit ñi ñu ngi doon xaar sax mu am ci est-ce que mën nañu xaar peut-être nga génnee benn CD ou un album boo xam ne ce sera 100% nit ñi mën ko xaar ndax maa ngi ci même jaabira bi ci album bi version live laa ko def waaw version live bi nekk ci album waaw bi ñu ko teg yéen tamit ñu fekk tuuti fuddu yaram yi ci anniversaire léemu naa bi tamit léemu naa bi tamit loolu version live la mooy bi ma wax yàlla na ma yàlla yeggale ni yoon. Mhm. waaw parce que loolu moom laa doon wax bee passé. Euh, dafa ci wax ba duñ ko fett. non non non non non non <laughs> mais je veux dire que ne euh, loolu lu tax mu ci doon wax parce que euh, dafa tombé. film bu ko laaj dara ci problème mu visa yeeg. yooyu bàyyi ko rek mu àggali la. non non non bu ko posé benn question. non posé wu ma question mais damay dëggal li mu wax. Mhm. parce que loolu mooy prendre conscience li la yàlla may. Mhm. ba mu léemu boppam ah, donc xam na yàlla may na ko lii. te vraiment euh, loolu defe naa ne bi mu ko woyee Cissesse moom gis na ko bi mu ñëwee taxaw euh, foire ba yàgg avait tellement de monde foo dama ne dama ne gis naa ci àdduna ndaw mu tabax këram te ba mu demee ba yegg dëkku ca mhm. gis naa koo xam da doon ñaan yàlla tukki ba mu demee ba léegi ñëwaatagul nga gis kuy ñaan yàlla sëy ak diw te ba mu ci duggee amu ca njaboot mhm. ma ne yàlla bu dee musique bi am naa ci cër maa ngi lay ñaan nga jox ma ko te nga yeggali ma ni yoon macha allah waa Mbour géej nag nañ ma xaar 15 out maa ngi sali asalia mbuur na ñëpp génn sali teranga aar. incha allah 15 moom mbuur laa koy passé. mais di nga dugg ci région yi. waaw def nañ daaw tournée nationale ak ak euh, maxu production ak doomu jolof ak doomu jolof waaw ñu ngi koy waajaat aussi. mais daal nañu waaj jamono ji voile d'or euh, BCEAO te dama koy tëjaat tamit sama gox Malibu. mais Serigne Serigne Diop dama la mës a dégg ci ay son rap. waaw ah. ndax dama daan rap dama daan waaw man musique yëpp laay dégg.